lii daal ngeen bëgg a wax ne mooy politique gu Sénégal man daal fu ma neex ngay far soo fa farul ma génn saaga sa ndey xamal la waxal la li ma la xamal bu dee jigéen nga ma dal ci sa kaw wax la lu la neex bu leen yaakaar ne ndey ndaag li mu faral Sonko nag moo tax ma génn déedéet loin de là kaasal naa fi façon jigéen bu nekk te mosu ñoo wax sax ci politique mais dama xam ne yéen a ngi songu jigéen ju ñeme coow yéen a ngi songu jigéen ju am mentalité yéen a ngi songu jigéen ju am responsabilité yéen ngi songu jigéen ju am charismatique xam ngeen ex mannequin ancien mannequin maanaam ba jamonoy euh, temps tànjaan di people xam ngeen jamonoy people jamono boobu nga xam ne buñ coowee sa doom bind ko ci journal yi nga yenu sa loxo ne man yàqu naa jamono boobu la ndaag doon dénku coow moo tax seeni coow ay seeni wax mën naa leen a waatal ci yàlla ne tollul fii nday ndaag xuyal leen glace naan ko te dem tëri yéen ngi wax ko am personnalité barki Serigne Touba Mbacke ku teel a jóg nday ndaag yow doxalal